ayca mi mii noonu kon ñu euh, dem ci li nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna nee na dañu jàpp lu toll ci cent treize euh, prisonniers yoo xam ni dañoo jàpp ni daal dañu leen jaay doole bari nañu ci kaso bi ëpp nañ fa ay junni nit ca biir kaso bi waaye dafa am ñoo xam nee nañu li tax ñu jàpp leen ba ci azora mi mujjee jàpp nee nañu daal ñàkk ànd ak président la ko euh, teg li mu li ko li ko dal Assane noo gisee wax Guy mari Sagna ji ci cent treize personnes yoo xam ne jàpp nañ leen ñu nekk ay prisonniers politiques waaw cent treize personne son bu du lu ñu du lu ñu rafetlu lu ñu lu ñu lu ñuy ñaawlu la ndax am na si ñoo xamante ni boo leen gisee jaxran da nga xam ne lii ñu leen jàppee. Mm-hmm. ana sa waa ji bàyyi nañ ko Diop. Diop bàyyee guñ ko. ci filmer rek. waaw am na si ñoo bu ñu leen arrêté ki leen arrêté bu leen diglu leen leen na war a bàyyi ñu dem ñu leen jàllale. Mm-hmm. ndax dañ leen di leen war a diglu ni leen lii bu mu amati wax leen ni lii loi bi da koy tere xamal leen lañ lañ sa war a def ñooñu kenn waru leen arrêté ba tëj si lu noonu ëpp na. waaye nag am na si ñoo xamante ni moom jaadu na ñu téye leen corriger leen. mooy ñan mooy ñi nga xamante ni eh, nit ñi wane nañ seeni kanam ñuy demee di saaga wala ñuy yób yóbbante ay saaga. yóbbante saaga mooy président Macky Sall. loolu fu mu am. gis nga salañ ci bég lépp kay. ñu naan ko fu hélas ñu ngi ko koy wax. ah xaw ma lu ñuy wax <laughs> man li wax gisuma ko de. Eh, yow yaa xam yow yow gis nga kuy président fii ci réew ma ci yow mas gis ku taxaw fii ci biir réew mi di saaga président loolu yow mas nga ko gis <laughs> man de mosuma ko gis eh, fii ci réew mi nga toog kuy saaga président fii ci réew mi ah asan ah, nag asan nag ñooñu kon gars yi nag yaa ngi leen di wan yoon wi de hmm? yow fii ci réew mi daa da gis ku fi saaga président man ko gis si si anglais wala nangam wala man lu mu si man di doon loola garaawul amul problème ñu koy gis ñu ngi koy gis ñu si war a kii waaye daal en tout cas son yi yenn yi boo ko dee def bul di wane sa kanam wala nga si manifesté wala nangam nangam xeex la ñu woote pour xeex naka la ñuy def bu sunum réew jubbantiku waaye nañ ko teg si xam-xam nañ ko teg si bëgg réew mi mais bu buñ ko teg si ak tooñ buñ ko teg si ay saaga buñ ko teg si ak yàq. buñ ko defee rek jàmm mën naa am bu ko defee ña nga xam ne ñu ngi. pourtant yow toogoon nga fii nii président Sall pour réew mi jag faaw booy wàcc mbedd mi émission baa ngi si GCB soo bëggee mën naa ko play après. yaaw nga ne bu ngeen taa yi nga naan booy saa njóogu yi da nga ne président Macky Sall wàcc tali bi rek kay tax affaire yi mu mu tege ci yoon Assane nag da ngaa bëri joxe El Hadj. te <laughs> man léegi El Hadj rétro émission rétro dinaa ko xewalaat. <laughs> indiwaat yu yàgg yi rétro nag bul fi jël bul jël Assane dañ koy signaler boo jëlee ay waxi démbam musiba am. ah na la bàyyi noonu. say waxi tey moo compte du démb compte te boobu yow la doon <laughs> yow la nekkoon ci ah. groupe ba ah. di di di di di la sànni ay files ah. mam naan booy Issa Ndiogou yi xam nga dama di waaw mu ne président ma Sall il faut booy wàcc tali booy Issa Ndiogou yi mu doog a réglé na loolu jàll na sama fu lu bees lii ngi nii li ma si wax mooy nañu war maa njiitum réew mi ah joxante cër jàppalante sunu réew jëm kanam voilà ayja alaaji mhm. ndax da ngay seddoo Guy Marius li mu wax wala itamit am na ñoo xam ne faaw ñu yar leen waaye yar de kaso de loolu la doon jariñ nit ki def na njuumte euh, nga teg ko ci yoon ngir bu ëllëgee euh, mu bàyyi mu moytu njuumte kaso luy defar moo ko tax a jóg si yàq taxu koo jóg nit ki bu fekkente ni bi dafa def loo xamante ni naka sudut noonu la ci pénc mi ñu ne nañ ko jubbanti teg ko ci yoon mm-hmm. ba bu génnee lu mel noonu dootu ko def mm-hmm. waaw loolu la yëf yi tëddee woon mais léegi bu ñu demee ba nga xam ni mm-hmm. maanaam ki nga xam ni moom dafa yëg ni moom mi ngi ci yoon jàpp ni ki koy dugal ci kaso moo nekkut ci yoon léegi lan mooy doon kon njariñu kaso ci dégg-déggu nit kooku lan moo ciy doon njariñu kaso. jàpp ni kaso day yar. waaw parce que euh, xam nga ñoom dañoo seetluwut réew mi fi mu dooree fi mu nekk léegi xam nga léegi dafa am loo xam ni dafa xew muy challenge. Mm-hmm. damay ragal nag booy def duggum kaso challenge. Mm-hmm. te bu ñu fa tollee rek danañ néewal njariñu kaso. waaw parce que dégg naa mbër mu naan nañ ma jàpp si lu tax jàpp si wuñ ma. waaw waaw. comprendre nga kooku fii bu ñu ko fi mu ngi doon yuuxu daw di la woo ma ni bàyyil Assane bàyyil waxal. yaa ngi dégg njariñu njariñu njariñu kaso lay ragal ñu yàq ko. Mhm. ba nga xamante ni bi léegi day dem ba dootul doonati dara ñu ñi démystifier ko ba daal di ne ku duggul kaso sax dafa mel ni bokkootoo ci ñiy xeex mhm. nit ñi nag te bu boobaa dañuy gën a radical. mën nañu xeexee neneen noo xam ne bi kii xeex day jublu pour ñu téye ko maanaam day dem ba mujj gi ñuy wax naan réew moo xam li ñuy wax naan réew moo xam ni luwaa amu fa yoon amu fa nit ñi nga xam ni ñoo di ñëpp seen dëkkuwaay mooy kaso ba loolu bu ñu demee ba tollu foofu musiba day daal day am. Mm-hmm. parce que tey am na ñu bari ñoo xamante ni bii tey. bu ñu duggee kaso ba génn dañ leen di gën a naw lan moo tax ñu di leen gën a naw mooy lan moo leen dugal kaso parce que sàcc dugalu leen fa fen dugalu leen fa saaga wu ñu nit mhm. maanaam dañu taxaw ne man damay xeex ngir sama réew jëm ci kanam ngir sama réew jëm ci lu baax ci lii lañ ma dugalee kaso kon man héros la martir la et cetera et cetera loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li garaaw mhm. te donc nag loolu wax dëgg fa yàlla war nañ koo moytu jàpp yi nga xamante ni bii moom la ñuy jàpp. yooyu lay indi waaw. loolu mooy li nga xam dem ba indi ak ñàkk jom day non day non du doon ñàkk jom mais léegi nit ñi mën nañu gis ni bon dañ mën nañu wax ni bon les vrais patriotes actuellement. ñoom la ñuy dugal ci kaso yi. yaa ngi dégg léegi buñ tolloo foofu nit ñi dootuñu dawati. dootuñu ragalati dara. léegi yow li nga amoon pour ne danga leen di napp ne kii. léegi moom ki ngay jàpp day jàpp ni yow mi mi koy jàpp jamono ji nga koy jàpp yow yaa nekkut ci yoon moom moo nekk ci yoon léegi bu fekkente ni bi mbir mi foofu la jëm laa kon bu boobaa kaso bi dootut am sens. Mhm. kon téye nit ki jàpp ko ci dugal ko kaso amatut sens. d'accord waaw mooy privé nga ko ay liberté am sorté am ak dem ak dikkam mais amut sens quoi. te moom ki am na ci beneen gis-gis boo xam ni bokkut ak sa bos. <coughs> loolu la. kon daal donc waa wàññi jàpp gi. jàpp gi daal cent nañ ko ba dañ ko war a ba parce booy yi ñu jàpp nii yëpp lan lañ doon kii. waaw ku ci mel ni Diop Taïf moom. <coughs> xam nga Diop Taïf filmé téye nañ ko. mën nga wax ne bon peut nga ne ko bon li nga filmé waroo ko def. xamal ko mu xam. Mm-hmm. comprendre nga nga bàyyi ko mu dem. Mm-hmm. loolu nga may ko nga may ko sens. <coughs> vraiment da am solo. maa ngi gis keroog euh, Papito bi muy nettali façon bi ñu ko jàppee ni ko bàyyee da ngay parce que moom ba léegi nee na kenn waxu ko. ni ko lii nga def hmm. moom daal naxante dañ koo nax nag jaarale ko ci publicité nee na benn femme ko woo hmm. ni ko dañ laa soxla ci benn marche publicité bu ñu la bëgg a jox ñu joxante rendez ci benn restaurant hmm. oh, ndaw si ne ko maa ngi dugg ci kii bi retiré xaalis bi mu duggee mu woo ko ni ko am na benn waay buy ñëw maa leen boole waa ji daa ñëw rek ni ko c'est la police ñu fadam ko yóbbu xool loolu te mën yónnee plainte kon mu dem boo ko yónnee day dem ah, ay kilifa war dem ba àgg si waxtaan moom jox ko pelante ko heure day dem wuy ji waaw mu jeex tàkk